لنا وزاركنا للخل ليبر ما ينبى مدادي وأقلامي ولوري وكلكلي وجسمي لمن لي وجالس والوهبة مدادي وأقلامي ولوري وكلكلي ismi mooy ku sañoon jotaayoo ndax sa dignité sa personnalité sa bëgg Sëñ Tuubaa lii dox nag ko doon doxal dinañ la résumer tuuti présenté ñi nga xam ne dañoo teew sa njaboot bi Serigne Cheikhouna moom Serigne ak soxna maam Assa mii di sa doom ndax maam jaara sa doom la kon sa sët a ngi sa sët yaa ngi nii teew Seex Mbeng di bàyyi sëñ ko so booleel na kuréel gépp sant na ci matam jitteem jotal mu ànd ak soxna yu baax yi buñ tuddee soxna ba tóor mu yóbbaale ñëpp muy jàmbaar di présidente les femmes juristes di Sénégal ñu ngi koy ziar baax a baax sëñ Omar mii nekkoon porte parole sëñ Fallou Bissou sëñ kàllaam mi yor lépp ñu ànd nag kuréel gi muy ñee nga xam ne mooy màcc moom nu rëy mi ak nuuru daara ni nga xam ni sëñ bee na leen dee leen ñëw di ma jàngal xasaay ak Baye Fall mais Mbàkke ak ki ma waroon a njëkk a mooy leeru Cheikh Ibra gi di sëriñ Moustapha Fall moom sëñ Cheikh Fall Baye bu sëriñ Touba desoon ci kenn du xam kan mooy soxna Baali ndax kon kenn du xam sëriñ son yi bu te kon muri di duñ jàng ndax ñi fi raw ñëpp sëñ son yi boo jàng léegi laa siyaar sa mag ju baax ja sëriñ mu Habib loolu ma wax ci moom ne ko ministre Mayomba ñëw ànd ak labbe bi Mbàkke tey bi nu sukkee ci kanamu sëñ mu murid yëpp am na lu ñu yëg dem jëli kale kale maa yomba defar caabi ju rafet ne ko mbàkke kele yi tey lañ la koy jox bis ni que tey koo tiddi lutul maa yomba du dugg te maa yomba kenn képp ko tëjoon mooy ka fa defoon ñeenti bantam yi bañ fayee ko jumaa ji fekkoon na Cheikh Bamba defoon fa jàkka fa penku quartier ga mu jublu mag bu quartier gay it Bamba daal di nodd ñu maaj mu kabar noon ya far ko gedd dëkk boobu nu jëm moo fa njëkk wax laa ilaha la moo fa jëkk a jaamu yàlla moo fa jëkk a sikar moo fa jëkk def lépp kon Mbàkke yow lu nit defati ci yoon wi yow la koy defal wexoo rëyoo soxoroo doo wor tayit jafewoo ñàkkoo xorom ñaawuloo doo maas gu nuy tëkkale gayndee la jur gu lewet te mësta fàdd lu dul ittee ki soxlaa ki jaaxle ko moo darale moo tax nga mel ni nga mel nuróowuloo ku ko moy itte yu yi nga làmbool boore koog bari le jàmbaari lislaam dis gor muñ ta yaa bari ngor yaakaar yi ñëpp nga doo gant doo gëna doo gàntu nit ci soxlaam doo ko boddi ci sa doo fàtte doo fàtte doo nit nit muy dox ba tële li muy dimbali ci ay nit barke Cheikh Ahmadou Bamba mënuma koo lim. Karawaanu Mayumba bii nga xam ne pas-pasu topp jaar jaar sa maam ja Xaadimul Mustafaa ca Gabon barab boo xam ne jaaroon na fa ñu di ko fa xatal ñu fexe ba xat-xat yooyu yaatu ba fuñ ko doon xañe mu samp fa ñeenti bantam ngir julli ñu sampal ko fa ay sooroor. loolu moo doon seen yitte ju ñu njaal beenoo ba fii ñu toll te mooy doon seen yitte ëllëg sëñ bu Bousso mi nga xam ni nag liggéey bi moom ab gis-gisam bu yaatu moo taxoon ci jamono joo xam ni président Bongo nee na moom muritub xol la bu jox sëñ tubaab xolom joxoon na ko ñaar téeméeri nationalité ca Gabon ni ko dama bëgg ñu samp mbirum sëñ Touba fii ci Gabon moom sëñ Fallou Bousso lam ca teg dañuy lépp sëñ Touba moo sut fanu doomu aadama nañ góorgóorlu nag ba fondement sëñ Touba loo xam ne ku ñëwati soo accès man cee teg sa jëf fondement nag ci réewum jàmbur la ca jiitu mooy defar ay kayit moom taxawal na kayit yoo xam ni mi ngi ko sukkandiku ci nationalité yi nga xam ni président Omar nga joxoon na ko te ñun ñii ñu doon kenn ca ñeen joxoon nationalité yooyee mu toll ci ñaar téeméer nationalité waaye doomam yi ñu àndal muy sëñ naa muy kenn ku nekk joxu leen nationalité yooyu waaye da koo jëloon teg ko ci loxoy ay murid yu am pas-pas yu jubloo liggéeyal sëñ Touba fas ko yéene wéyal loolee nag moom sëñ bu Bousso mu nekk ci ba yàlla dogal atum 2017 mu làqu waaye fekkoon na nag mu xam le ab joxañ boo xam ni lam jublu ngir ñu defal ko sëñ Touba muy topp ay jaar-jaaram woote woon na benn bis boo xam ma ngi ko tuddee sa maam soxna jaara ni bisub soxna jaara ca Maayomba daaray sëñ Touba ak institut islamique sampal fa sëñ Touba ñeenti bant yu yu wotti ñeenti soorool yu wotti ñeenti bantam yooyu loolee nag ba mu wujjee boromam yàlla dogal na at moomee muy atum 2017 lañ organisé karawaan ba ci jiitu yemale ko ca waa Gabon muy karawaan national ñaareelu at ba ñu dox ci ay jéego ba ci ñetteel bi nag ñu gis ni liggéey bii kat ñi ngi ciy dox waaye néew nañ ci doole lool te xam nañ ni murit sëñ Tuubaa yi bu ñu leen ko leeralee ba xam ni mu demee xam fa mu toll dinañ ci jàppale. ndax ña fa nekkoon pas-pas lañ am waaye néewoon nañ doole ci dem ci dëkk boo xam ne digganteem ak Libreville wan na 819 kilomètres nga daw ko ci ay oto nga xam ne ku daw ba àgg fa. Euh, lu la fa jëlee rek ngay wax waaye dootoo waxati loo fay yaatoo su ko defee ne kon loolu nga xam ne am na édition boobu ñu ñëwoon ci yow fekk si la Porokhane ànd ak soxna Diarra Bousso ànd ak soxna Seyni bu njëgan mi sëñ Moussa ak délégation bi yëpp ñoom sëñ Baddo bañ la fekk see sàkku ci yow ngay ndey mbooloo mi di seen lépp féete leen fépp loolee nag ba ko soxna jaar defee ñu taxawal ci benn édition édition ba ca topp mu wuy ji boromam ñun nag lañ fas mooy fekk karawaan bi ngi dox yaa jiitu ci suñu kanam yow lañ def marraine fee karawaanu maayo ma ngi di sax ñun ñii ñu du fi ne xaw xamuñu nag lay ñëw ëllëg waaye li sax fee ñi fii sax kenn ci ñun ñii loolu lu sax la keneen kuñ cay topp dañ la caa dañ la caa boole waaye yow lañ féetale loolu Mbàkke yeyoo nga ko nag ndax xam naa jëmm yoo xam ne jóge woon na fii nekk Gabon at yu bari ñëw nuy si sa waajur wa sëñ Soñ bu damaa bañ a tudd aw tudd ci askan wi la bokk bi mu agsee sëñ Soñ bi laaj ko ni ko Gabon nga jóge mu ni ko waaw mu ni ko ndax ba nga demee Gabon dem nga Mayumba mu ni ko mbàkke de ba ma fa demee dem fa sëñ bi génn ca wax ja nangutu la wax ak moom moo ma koy wax nag ba mu delluwaatee gabon amaan fab at fàttewaat loolu dellu si sëñ soñ bi sëñ bi ni ndax ba nga delloo dem nga maayomba ni ko ba ma delloo dellu ma sëñ bi ni boo dematee gabon na nga dem maayomba fa la sëñ Tuubaa doon liggéey bu ko defee nag kon tey su dee ci wàccuwaay ak yaakaar ak pas-pas fii la jëm si ci yow taxaw mbooloo bi rek jàpp le leen ba lañ yéenee sampal sëñ Tuubaa foofu ci mu murid yëpp fekk ñu ci ndax ba nga wuy see kat ñëw fi nun ca lañ amee dimbal ba tey ji ministre de tourisme Gabon labbe ba euh, maire Mayumba ak délégation bu mat juróom-ñeenti nit ñoo yendu si tey jii fii ak sëñ ndaxa biñ ñëwee indaale nañ ko caabi Mayumba ni ko dañu bu fekkoon yow yaa mënoon a ñëwal sa bopp Mayumba boo accès ca dëkk ba dañ lay quartier buntub dëkk ba jox la ko nga ubbil sa bopp dugg tàbbal ku la soob waaye nag ndem xam nañ ni at yi matee ko waaye da ngay yeble moo tax ñu indi la ko Touba tey andaale nañ nag ay tawfeex yu bari nee nañ ndax nee nañ suuf yañ doon sàkku ngir defal ca sañ Touba barab yooye muy daaree soxna jaara ji muy sooroor yooyee nee na suuf yooye président bi nee na leen lépp na nu ko jàpp ndalal te gunge ñu ci liggéey bi ba lañ ci bëgg ñu am ko kon nag andaale nañ lay ndam tey ndax jàppoon naa ne ñun ñii liggéey boobu lott nañ ci sëñ Koso sa doom ju baax ju ñu taxawu ci bépp ndax sàkkoon nañ sëñ mun ni ko kay keñu ñu jiite sa liggéey boobu nay bawoo feew mu yebalal nu ko boole ko ak sëñ Xaadim moom it ba mu ñëwee ba sëñ Mamoun Lo mi ñëwee ànd ak délégation ba nga yebal di jël ak jàppale di nu ko andil dañ ko teg ci loxoy sëñ Koso mu ni kooku mooy sama lépp maa moom benn lañ moo ma féete fépp bu ko defee nag kon jëf yu rafet yooyu rek lañuy ñuy dellu si Mbàkke di la ko wax am nañ ciy tawfeex yu yaatu ndax soxna Seyna bu mi fukki at la am ak ñun Gabon nekk ak ñun te it boobu fukki at yooyu fekkoon na ci suñ kanam la yoroo nag ndax jar nijaay laa ci moom waaw ñoo dëkk ñoo sosoy kër ci Thiès yàgg ñu yàgg koo xam mu doon baax nag di satub maam alaaji Amat Baro Njëgan mi nga xam ni moo dalal Cheikh Ibra Thiès bu ko defee ne kon tey su fekkee ñëw na am ak ñun fukki at ca Gabon yàlla dogal mu ñëw ba dugg Touba ba taxawaay bii mu am mu am ko fi ñu ànd ak moom ci liggéey bi sañ ko sonni da koo defoon xañ na sax ci bëggam lu baax ak gunge leen ak kóllëre gam séq ak soxna jaar ak lu baax waaye léegi nag mag ko digal bu ko defee nag kon su ñëwee tey ji duñ jàppale ànd ak kuréelu mañ mu nooree ni ak kuréel kuréel nooru daal ni bay jóge Dakar ak ñoom ñëpp nga xam ne pas-pas rek lañ yëg ci ñoom kon wax dëgg yàlla kon ñëpp a ngi nii sëñ Moussa Niang mi mooy responsable transport wu karawaanu maa yombal li jëm ci ku bëgg a dem ak yoon ma jaar ba mën a dem moom moo ko yor ah, administration bi soxna maam Assa waaye sëñ Cheikhouna Bousso bii nga xam ni mooy doomi sëñ Fallou Bousso ma nekkoon ak ñun ca Gabon lépp loo xam ñi ngi ko ciy dox ñi ngi ko ànd moom ci taxawaay mu fépp foo xam ne sëñ Mountakha ne woon na nañ ko yaatal war nañ ko faa yaatal ci Touba gi xar na ci tànku tubayam ba àgg na fépp fii ba Daaru Musti Daaru Salaam ak njabootu sëñ Touba fépp ànd nañ fa ak moom ñoom ñëpp ñu joxe ci ndigal ñaax ci taalibe yi ngir ñu ànd koog ñoom ndegem ñaari guddi ndakaaru rek moo ñu mën a may jumaay Masaalikul Jinaan juróomi ati maa yomb nag kon war noo mën a am ñeent sooro yooyu ñu fay sàkku Mbàkke waaye nag dañuy ñaan ñu fekke ku te am wér te tal ko te koog yow waaye demande bi daal mooy dellu si waat wax ni dañoo bëgg soxna Bali ñëw maayom moom mi ci sërite yi la bokk ndax sëñ soxna bu ci sërite bi la sëñ Seexuna Buso mii nga xam ni moom la ñuy jox soxna si kàddu gi euh, muy ku dal ku yaru sànq bi sëñ bi làbbe bi nuyoog sëñ bi dama ne ko sa way juróo fam ne xelam dal na tey xolam sedd na ndax lii la bëggoon tey xolam sedd na barke sëñ moom mi ngi fi lii sëñ Cheikh Mbengue wax nee nañ sëñ bi nit da ko daan siyaar si ñu ne Gabon la jóge mu ne na ñëw te ngeen wër ko mu wax la ma fa def rusuma mu nettali la ma fa def kooku bari jom diirub li waajuram di rek Gabon ak man-man ak taxawaay ak lépp dafa sakku moom ñu bàyyi ko mu liggéeyal sëñ Tuubaa fii ci alxuraan ubbi daara fii ci Ngédé di jàngale ñuy tari di wàcc moom mi ku am mérite ngi nii. jërëjëf Bousso ki tax ma jël kàddu gi ngeen ni sëñ Cheikhouna buso mooy bàyyam bu tedd ba di Serigne Fallilou Bousso ma nekk porte parole am fanweeri at ca Gabon bu Musaa nag mbir mi tollu fii tey mu war a jël kàddu dana ana Omar Ndiaye ma ne ko maa ngi nii mun ma waxal soog maa jox kàddu gi mu fàttaliku loola ba ngeen taxawee ba ba pare mu toog tey di sëñ Fallou Bousso mate ku sëkk waaye jàmbaar jooju Mbacke Balla sëñ Fallou Bousso yàlla nañ ko yàlla fayal mboolem lu ko war nga xamante ni ca Gabon ca jul ya ak taalibe yi ak képp koo xamante ni teew nga Gabon di ab julit taxawul na la taxawaay boo xam ni ak Gabon ya ne Gabon ya nekk Gabon mu taxaw leen kenn ku ci ne tudde ko ay doom kenn ku ci nekk ni ko yaay Bousso yaay Serigne Touba mu taxaw liggéey bi mag bii tey kere ba mu ko sosee woote ni dama bëgg liggéey Serigne Touba bëgg ko ànd yéen du leen nax duma leen jay su ngeen demee ba gis ni teguma ci aw yoon taxaw leen dama bëgg ñu àndal liggéey sëñ Tuubaa bu ëllëgee mu fay nu kooku mooy sëñ Fallu Buso. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, soxna si ñoo ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la ndokkeel tey ñaan yàlla suñu borom dëgëral la takkat na la ba yoon wi nga jaar. mu liggéey Sëriñ Tuubaa ak dimbali itam mbokk jullit yi suñu borom gën la fee bàyyi gën la kàttanal mu mel ne kàddu yi jiitu leeral nañ lu bari mu suñu Seex Mbeng ak suñu Omar waaye dafa mënta ñàkk ñu sant la cant goo xamee ne ci suñu xol lañ ko tubbee ci njaboot gi suñu fàll gi yëpp waaye njabootuk ak man karawaan gi yëpp di la seedeel sa ndaw yi nga yónnee woon muy sëñ Mamour ak Soxna Faati taxawaay bu mat sëkk solo lañ ko taxawee yëmul rek ci ay ndaw waaye dañoo ñëw jàpp ci liggéey bi sax nekk ci liggéey bi liggéey boo xam ne dafa mel ne bu ñu woon ñibbi sax Sénégal loolu nag day mel ne kon maanaam li ngeen nàmpata ci seen Tuubaa ci Pastef ak bëgg Sëriñ Tuubaa jàpp na leen ba ba ñëwee taxawaay bu rafet bu maanaam bu kawe njort lañ ko taxawee loolu nag kon day jaadu bu ñëwee sa kanam seedeel la sa ndaw yooyu ñëwoon indi ñu fa comportement boo xam ne mu ñu dàqal lépp nga boole ko nag lañ nga ca boole loolu lépp yàlla na si lañ Tuubaa defal du kawe sa njort loolu moo doon kàddu seede yi ñu seede ci ñoom ñii nag nga xam ne ñoo àndoon nag ak Sëriñ Fallu Sëriñ Seex Mbeng wax na ko léegi ay góor lañ maanaam passif moo leen boole nag Sëriñ Fallu ndax daa waxoon ne soxaluwuma borom alal waaye borom pëstéef laa soxla ñu ànd ak ñoom ci pëstéef ak bëgg sëñ Tuubaa ba taxawal lii sëñ Fallou dem waaye mel na demut ndax taxawu nañ gannaawam taxawaay boo xam ne lii mu bëggoon muy liggéey sëñ Tuubaa mu fondement ko loo xam ne ëllëg si biir lu ñu bëgg liggéey teg ci kawam ñu ngi ciy dox doxin woo xam ne kawe na njort ma leen sàkkul ñaan kon man damay sàkkul leen ngeen ñaanal leen yàlla gën ñoo kàttanal gën ñoo dëgëral waaye gën ñoo boole ba liggéey bi seytaane bañ ci amu yoon dara bañ ko warax lu dul jëm yàlla ak liggéey Sëñ Tuubaa lu ko naa rax rek nga ñaan mu teggi loolu ndax Sëñ Tuubaa yëpp maa li mu yellool mooy lu set te te sell loolu nag kon bu ñëwee dañ ko sàkk ci yow mel na ne tamit sëñ Cheikh mi ngi wax na ko léegi mu Mountakha bi ñu fa demee itam wax nañu ñaatal liggéey bi dem nañ ci mboolem kilifa yëpp leeral leen liggéey bi ñaan nañ ci yëg ci ay kàddu soññee ci liggéey bi nag dafa mel ne lu sori la ndax sëñ Abdul Ahad Mbàkke moo ko xoon sëñ Fàllu yaakaar naa ñoom ñëpp mën nañ koo seede gaboo ga nga jëm dañ lay liggéeyloo yàlla ak Sëriñ Tuubaa maanaam taraangi àdduna yàlla yonent bi Sëñ jox na la ko foo mën nekk Sëñ Tuubaa mi ngi sa wet dana liggéeyloo nag ca Gabon na nga mun tabul fayantoo wax na ko ko toog lu ma ñaar fukki at liggéey bi door ak si ci loxoom kon liggéey boobu kon mooy lii ndax doomi Sëñ Tuubaa ay waxam nday sar rek sëñ Sidi monsieur Abdoulaye bi ñu ko waxee loolu dana ne lii ñaan gu nangu la 2022 bi ñu ñëwee jógee Mayomba maak son maam Assemi ñu ñëw siyaara ji sëñ Muntaxa fekk boobu ñoo jiitu woon ñoom sëñ Seex ñii xamal ko ne ko liggéey bi kat fa sëñ Tuubaa sampoon bant ya église bi da ko wër te mu nekk barab bu naqare jot nga ñaala ñu ñu mën caa jot ba yéene yooyu mooy jumaa jee kër soxna jaar ji man fa am mënuñu ne seen xel dal na seen jot rafet di ngeen ko am tey nag li ma ci gën a yéem mooy bi ministre bi ñëwee ak labé beeg ak maire bi ba jox ko caabi ji caabi maa yomba ji sama xel dafa delluwaat ci lañ ko waxoon 2022 2023 amut 2024 bii da am ñoom ñaan gi yëmu ci nangu waaye dafa nangu ba àggal ñoom waa maa yomba def délégation indi ko caabi ji kon loolu liggéey suñ tubaa rek la te day man ne moom da nga nekk rek di ci góor góorgóorlu waaye la ko sottal lépp ci moom lay doon te xol yi nangu nañu wax dëgg yàlla xol yi ñii seen xol yi nangu na lool kon nag euh, kaddu rek yu ma doon yëkkati euh, ak seede ak leeral waaye di ñaan yàlla suñu borom defal ñu tawfiix ak ndam bu baax baax. fàttali ne rek sab doom ci yow Abdoulaye Sylla ren dañ koo def parrain bi soxna Amitine mais di ak si ñëw teewal soxna Ayda ci jotaay bi ak soxna Asubali mi nga xam ni kenn la ci ñoom ñooñu kàddu gi dañu koy bay ak yow. Abu Bakrin. أسألك اللهم بالصديق هنايا بالتوفيق والتصديق بجاهه جدلي بالتوفيق في كل شيء ولتكن رفيقي وجه به لما ينير سوقي ورد به لكل ذي فسوقي بدد به عدايا بالتفريق واسلك به بأنفع الطريق كفيتني به أذل بطريقي في البر والبحر وفي الطريق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 يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارض يا رحمن عن الذي سمعته عثمان نفيت ضري وارض يا رحمن عن الذي سمعته عثمان علي علي من ربي بالمخفي وسق رداءك إلى علي لجد علم نافع سني وعمل وادب مرضي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 ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci sangi sangi naa muhammad noo ngi santaat Serigne Touba Xaadim Rasool di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér naar yi mu naa la diine naalal ko lislaam mu àggale ko sagoom te nu ànd ko moom téeméeri at yu tàmbali tey ñu yëkkati kàddu yu sell yu tedd yu bàyyi ko soxna mun Mountakha bintu Serigne Souhaïbou Xaadim Rasool jëm ci délégation bi nga xam ne tey ñoo ko fekk si te moom mu bokk ci biir mu mel ni moom soxna Bali moo seet si waat boppam muy caravane Mayumba jiital ci nuyoo bi bu baax ah, doy boppam ji ngeen fi fekk muy sëñ Mahmoudane mee toog moom sëñ Mamadou Moustapha moom sëñ Mamadou Basir waaye max sëñ Mahmoudane moom soxna Ami Mbacke bu ñu sëñ Abdoulahi borom dër bi te ku ne xam na ni soxna Ami ak soxna Bali mi ak soxna Moomi dër bi ak sëñ Modou Abi mi xel seen borom dër bi ak soxna Maam Bousso ñoo bokk benn wéy jur bu jigéen kon muy sunu maam ja ni soxna Maguette Gueye yàlla na yàlla ma yërmandeem te dolli leeram te taas ñu ci barkeem kon Serigne Mamadane ñu ngi koy nuyu baax di ko ak Serigne Cheikh Diop kooku mi fekk nga xam ne mboolem nit lu soxna Baali njaboote rek ñun ñëpp mooy sunu jawriñ doomam ji ngeen àndal it mooy Serigne Cheikhouna mii nga xam ni teewaayam nee na xel day dem fu sori muy Serigne Fallou ak soxna maam Assa mi nga xam ni moom it. dëgg yàlla ku leen gis rek sa xel dem ci sëñ Fallou dem soxna jaara soxna Seyna bu njëgan mi nga xam ni dafa jaayante Sey Ibra Fall dana jaayante du du yëfi la noobu la koy def ndax kii baa la mooy koo xam ni moom dafa des ginnaaw wagon bi départ fi leen koy bàyyi oto tàkk bañ ne ko yéegal solul bu mu rafet jéemut am dara ci àddinaam nee na kooku bu nee daa jaayante jaayantewul ndax moom mënul dara nee na ki man nag am lépp bu làmbee dek judd bi doy sëkk góor sëkk bi doy fu mu bëgg a dem dem fa lu mu yóotu jot ko kooku wëlbati ko raam toog ci suuf saarafal ne na loolu mooy jaayante moo tax ñoo jaayante alalu noobul la te soxna sëy na bu judd bi mat na ko taxawaay mat na ko la mu war a dundee it yàlla xañu ko ko waaye mu jaay lépp nag ñëw ci nun jëndeewaat ko sëriñ bi ku ne xam nañ alaaj Ahmadou Baro keroog bi sëñ bii dem ci géej gi jaar Cees Sëñ Tuubaa bi mu nee leeru yàlla da koy ki dëkk bi kuñ ko tudd danaan tekk bi ne alaaj ahmadou baro njëgën sëñ tubaa baro gi dane bëru njëgën mu ne ñëgën sëñ tubaa ko amoon personnalité la ay waxam day fullawu lool doonu mën ko xam da ngay wax muy wax te te te daawul werante boo waxee lu mu jubul danaan teg mu nga ne teg nga teg ba ba xamoo li nga war a wax moom sëñ tubaa mu jubbanti kàddu gi keroog bi maam di dem di wuy ji sëñ tubaa ki jur baayam la àndal muy alaaj ahmad njëgën alaaj ahmad baro ne ko dangay def rek lu ñëw du du taxaw lu ñëw du taxaw te moom Mamadou mii ma am ci moom yaakaar ahmadou sahir la ko tuddee am na ñu naan sax sëriñ bi la ko tuddee waaye ahmadou sahir la ko tuddee moom Cheikh Ahmad Tidiane Chérif moo tax nag bi mu àndeek moom sëriñ bi maam alaaji moo nettali ni keroog bi ko sa maam yow soxna Bali tegee loxo bi neen daa mel ni fa ko sa moo am moo am la ko yan te nee lu li ko yëm mooy jëmm jàng tuuti lool waaye teewul bi mu ko tegee loxo bi dafa mel ni wagon bi moom lañ teg ci kaw bopp bi sëriñ Tuubaa ko dana dund dana gudd fan te te dana barkeel loolu ci mil 1895 la man mii je suis né 4 janvier 86 fekkee naa maam alaaji dem naa ca moom laaj naa ko ci sëñ Tuubaa man mu wax ma ma dégg kon nag kooku la sëñ Tuubaa ñaanoon ci moom yàlla yàlla barkeel na ko yàlla tellal na ko moo kooku nag moo jur Abdou Rassakh mi ngi jur soxna Seynabou mii kon moom it mu tàbbi siwaat fii nag fekk siwaat ci liggéey sëñ Tuubaa bi nekk ko ci biir daaru Minam ñu dénk ko sëriñ Koso waaye mu liggéeyal soxna Baali nag ndab yi bu paree moom la koy yëg lu baax lu ne mu indil bàjjanam kon ñu ngi si siyaare di siyaare bu baax it ki nga xam ni mën naa ni moo leeral yoon wi mooy sëñ Moustapha Fall mi moom sëñ Cheikh Fall bàyyib góor ñaar yii nag soxna baali samaam rek ko am kii toog maamam Moustapha waxtu kee maamam Moustapha julli waxtu te ñoom ñaar bokk benn sëriñ moo tax sëñ Moussa Kane xaadi Momar sop moom la Bamba soppoon moo dak moo dakkoon a àtte ca maas nga mu ne woon sëñ Tuubaa ne ko yow mii xaadi loo att ci man fil ardi bil araadi mu ne ko att naa ni yaamat xutbu yaamat xawsu ni fiisal saman ngir kuddul yow bu jiitee say maamuum mu ñu sàbbaal ko wala ñu jam ko wala mu juum ne ko Ibra Faal du julli julli juróom Mbàkke bu sa Mustafaa waxtu juróom yaa mën a jiite ñaari gaa yi bokkul fu nu awee kon yaa raw ña teew ñëwéy ak ñiy bëgg a ñëw sëñ Tuubaa ne ko nag fax di yow ab gis nga ndemal atte ji antaxaat yi kon bàjjan nuyu bu baax Serigne Cheikh Mbengue mii jëruñu liggéey bi nuyu bu baax mboolem ñi mu ko sekkal seen kàllaamu ak seen bàddo ma ca réew ma ak mboolem ñi nga xam ne rek ñoo ñoo ñoo lëkkale liggéey bi. siyaare bu baax waa Nuuru Daare ñi sëñ Serigne Ba buñ ko nuyoo tudd mbooloo mépp ak sëñ Xaadim Fall bu maj mu nooree ñi fii fawaay di Daare ñi Thiès moom ñu ngi koy siyaare nuyu mboolem ñu mu àndal soxna si nag dafa bëgg xolam sedd moo waral mu ma nag. santal ma leen ñoom ñëpp te nga gërëmal ma leen ku ne xam na ni ay yëg bis ngi nii yoo xam ni moom ubbiwul génnul ndax fii ngeen ko fekk sax xëy na barab la bopp ci biir barab yi waaye mën naa ni ñu ko fi fekk te mas ko fee gis loolu lu lu néew la waaye li waral it bu ngeen yëgloo ak lu mu mën a jàppit mu ba ko baat bii sëñ Cheikh Meng wax ndax sëñ Tuubaa moom lu ci bokk rek ab ab ab ab sidit la buy wal xam nga ne dem na Gabon ñëw ci sëriñ bu mu ne ko ndax ag nga maa yomb mu ne déedéet sëriñ Souhaïbou ne tekk nanguwut la wax ak moom kon jàppal ne jeexital yooyu rek moo àgg ci soxna baat lu mu fatu fatu bu del ma bàyyi ko maa yomb ba dana ubbi léegi Mamor Mbaye di wax la ma jooyloo mooy lim ne ko bu ñibbisi bi amul woon jootaay bi du am waaye man sama bopp rek damaa calculer man man mii di wax man ne sama dund moo dundan ba faatu te xaw ma ku mel ni soxna Baali loolu pertement la man kon mooy wane ni kon tukki bi ñibbisi gi sérité gi dafa yaatu ku ne da nga gis sa bopp ku ne dang nga yëg sa bopp ci lépp ak ci nu ne ak ci fu kon nag soxna si lu mu mën a jàpp bu ngeen ñëwee nee na da koy bàyyi waxtaan ak yéen saafante jeg yéen ànd ak yéen ci ci ci liggéey bi yëpp. nee na kàddu yéen waxi dégg na ko ngeen xam ni xolam sedd na bu baax te yaakaaram gën naa dolliku ndax nee na ñi mbokkal sëñ Tuubaa bari na ñëpp njaboot gépp benn la te benn sëñ Tuubaa rek a am. neen te kooku noppi na ci ñëpp waaye bu ngeen rombee ñëpp nag tànn ko ne ko nag. yow lan def ngay ndeyu bis bi te nee na ba ngeen koy def nag nee na booba du tey ndax booba soxna maam jaaraa ngi fi booba booba xamuñ woon ni sax dayey bis bi wala wa wala bi dana agsi fii ngeen jëloon ko ko jox ko ko moom it mu nangul leen ko ginnaaw gi bi bi mu leen ko nangulee ba njëkk a jàpp bis bi liñ naan coronavirus am ñu toog ñetti at boo xam ni ab yëngu amut bi corona bi jeexee it bii nu biñ ko àjjiwaatee ngeen ñëwaat ba ci moom salaat loolu mu ànd ko yéen nu ànd ci daaw daaw ci waxtu wi li tax amul mu yëngu-yëngu ya amoon ci réew ma ren bi mu amaatee it ba lépp dalit ngeen ñëwaat ba fi moom ni ko lépp a ngi waat noonu kon nag ngeen xam ne loolu nee na gën naa dal xelam nee na ndax Serigne Kosso Mbacke di sëñ maam Thierno moom sëñ Modou Mountakha liggéey bépp buñ koy male woon ci moom rek nee na moom soxna Bally mi ngi ci biir njaboot geek mi ngi ci biir mu ne ndax kooku it day taaw bu mat taaw taawu lépp doxal lépp matal lépp kon nag bu ngeen àndee kooku rek mel ni agsi ngeen fi moom doomi boppam yii it nee na ñoom fu ne moom lañ fa nekkal ndax li sëñ Fallou liggéey foofu ca Gabon liggéey la boo xam ni dootul fay kenn mënatu koo soppi kenn mënatu ko sancé ndax sëñ Tuubaa bu xasee ba joxoñ la mu joxoñ ku cane yow yaa ne ca yoon continuité nag nag mooy am waaye liggéey moom du taxaw ndax sëñ Abdou de dañu woon liggéey bu jeex ñu naal beneen li fekk ñu koy fekki waaye ab murit buñ gërëm wala wàcc mooy mooy kiñ teg ci jàkk di ko jébbal Sëriñ Tuubaa kooku nag moom dana xam kam doon liggéeyal mooy kan dana xam kam doon ñakkal mooy kan ndax bàmmeel ba la muy lëndëm lëndëm kooku moom day làmb di daj day leer nañ ñi bat yi loolu loolu xale yi naan bu dee lëndëm damay xuus jàll loolu taalibe Sëriñ Tuubaa yow loolu ci biir bàmmeel muy wëccul la sii yu xibbu nii yëpp yëddu yow ma wujju suxadaa tab yëddu loolu moom mbirum sëñ bi la moo ko moom kon nag moom ku koy liggéeyal moom moom na nga xam ni pay gi ma ngi ca kanam ndax boo dee liggéey sëñ bi bul gersu ñett ca kanam la ñuy am bu leen faale ndax ñoom dañuy daw di ko wuti te yow lii ñëw coow da ngeen di daje moo tax sëñ mu Ka ne bay moo tax sëñ bay jaxate ni bàyyi la bay te muñ a muñ ngir ñi ngi lay toggal añ béykat bu ñu toggal añ na yittewoo rek mbayam kon sëñ Fallou sëriñ seexu naa yaag sa rakk ji ak ñi ngeen bokkal sëñ Fallou soxna si nee na moom it sant na leen bu baax gërëm na leen bu baax ndax bi noppee gis seen wéyjur di sëñ Fallou ak soxna maam jaara mënoon ngeen a ne ci leneen waaye njàpp gi ngeen nekkaat ci loolu continuer ko fii nag loolu rek mooy liggéey bi ndax nag ku ne xam na ni sëñ mag bi bi fi bàyyi ko Touba gii li tax ñu naan Touba ab làkku ngeer la waaye buñ ne xaadim borom jumaa ji nag ay doom yi am joma tax kon nag eh, loolu rek mooy liggéey bi fa mu yem daal li sëñ Moussa Ka li sëñ Mountakha naan buum buum buum buum laal suuf la ko la la koy tee laal suuf nag mooy kenn ku ne da ngay jàpp ni rek man maa war a gën a yëkkati maa war a gën a taxaw te soxna si neen loolu yéen yéen a ngi ci kon sant na leen gërëm na leen li ngeen di xam nit moom ngeen sàkku ci moom muy lépp loo xam ne ay taxaw moom maanaam yéene ngeen ko ci moom ngir def ko muy ndey bis bi nee na du ne nangu naa ko neen waaye dama naan santaat naa ci soxna jaara ndax bu ñu ba ne naal nañ fa ab kër maam jaara ak centre boo xam ni ak école ak ak eh, internat ba bi soxna jaara am fa dara lum ca moom nee na moom sant na ci ndax ki ñuy waaj a màggal nii ci weer wii muy Cheikh Abdou Khadir soxna Bally daf ma ne dama ko bëgg ba uma ci moom sago ndax estati téléphone yi sama sama bàjjan du koy def waaye da cee da koy def sëriñ Abdou Khadir lu bari benn bis na ma ko laaj ma ne ko màkke waa lii mom lu tax mu ne ma damaa amul payam ma ko ndax mu ma li ma gën bëgg ci àdduna moo ma ko defal ma ne ko lan mu ne ma moo ma uuf tudd ma tuddee ma soxna jaara kon moom lépp lu nu tudd tudd ci soxna jaara soxna Bally moom ma nga biir loolu kon daal ci ndigalal sëñ Cheikh Diop kokki mi di secrétaire général fondation Soxna baali euh, euh, ànd nañ ci lépp te soxna si neen incha allah rabbi danañ danañ la boole ak ñun ñu ñu ñu àndandoo ak suñu jëwriñ liggéey bépp ak taxawaay bépp ñu euh, taxaw ci. man nag ba ma fa yónnee ba ma demee ñëw dama leen man Mamoune Lo maa ni woon gëm naa Sëñ Tuubaa gëm goog dootul yokk dootul wàññeeku man lool loolu laa daan wax dama ne woon sëñ bi nit moom ci boppam moom sëñ bi du def lu tax sama ngëm gën a rëy nit mënu maa wax tax sama ngëm ko ci moom waaye bi ma demee maa yomba nag soxna baali nga yónni ma li ma la santaatee mooy dafa mel ni sëñ tubaa ba ma fekk Gabon bokkut ak bi ma xamoon man waaw day mel ni beneen sëñ tubaa ngay xamaat bu bokkut ak bi nga xamoon ndax nag Gabon maa yomba ay fela te it lii nag dama bëgg mu jàll murit yëpp ak ku yaakaar sëñ tubaa waaw maa ngi wax ci ci tuuru soxna Bali taxaa ñu xam ni liggéey boobu mboolem ku yaakaar sëñ tubaa ñëpp ci am cër mboolem daayira maam jaara yi moo xam ci réew mi ak réew ak fuñ ci mën a ne nanu xam ni liggéey boobu liggéeyal sëñ Tuubaa la liggéeyal Soxna jaar la na ci ñëpp tab bi ndax patrimoine patrimoine nag boo ko dee wër fi mu ne patrimoine piir maa yomba nga koy fekk ndax boo demee dañ naan la kër sëñ tubaa gii ci Montagne Sainte fii lañ ko takkoon ci ab fukki soldaar ak ñett ya viisé ko waaye bii nu xàccee ñoom ñëpp tëdd ndax waa axru dara wàcci sëñ tubaa wax ni yàlla dimbali na ko ci bisub talaata bi waxa balil waxaa bu fii sulla saa maa yux ji lu ta wa salaasa tey jii boo boo demee dañ naan la fii lañ ko takkoon waaye boo boo génnee vingt heures bu jotee enseigne li ministre day tàkk ñu bind ci digg bi masque Cheikh Ahmadou Bamba nga xam tey jii foofu moo ko moom kon foofu patrimoine bi ma nga fa boo départ trois heures du matin Libreville suba ci deux heures du matin ngay àgg maa te ci 4 x bu neex ngay dugg 14 oto bu nu déparé ñoom ñi dañ naan yëpp yëpp bu nu fees ndax dana am yooyu dana kërëb wala mu paan ci weer bi ñu jël ñoo ñu def ci yeneen oto te te loolu mooy mille vingt 2022 2023 bii ba ci 2024 bii nga xam ni da ngay départ ñu daw ba ci yàgg oto yi taxaw ndax am na 30 kilomètres ca kanam troupeau ñay bu war a jéggi mbaa ngay daw ba ci yàgg garab yi di rabbaloo ci kaw ba doo xam ndax ci guddi gëne wala bëccëg mbaa nga daw ba ci yàgg gis ay golo yu ñu lakk wékk leen ci kaw tali bi nga naan lii mu doon ak naan naan la nit mën a lekkee nëgëm loolu ci 2023 bi ci la ñu ne circonstance yooyu asama jamono bi nga xamee ni nag xëyee na fii 10 août 1895 ni ay asaminillaahu inda jeewali iblisa isna day tohoo bi yaawali inna la siina moo haali ha jeewali lohoo bi sayin moo xenan bi yaawali dem ne nafaari xeer laa xablu fin dari bi ahli badri usudi ka dari nafaal xeer laaw fin dakar kul asani jarohu makaaru allamani rahmanu fi safina bi annani haddi musil madina bara anillahu lada konakiri min kulli jalibi ilal manakiri ashaba anillahu fi karam basa hablu mubaris wa ani halbasa dahani rahimu inda dawmi lohoo bi saaxali xayrillaahu fii maa yumba maa saaxal bi wax lal jan ba la ca des nag bu karawaan ba dañu ko àggale wasalaamaaleykum wa rahmatullah وسالك نار الخل لي بر ما ينبغي